asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk mu leen di nuyu borom yàlla ay kese barke bi mal xaamal ak bar maa ngi bëgg ci commentaire yi di bëgg ci yi di bëgg lépp waaye tamit kontaan naa ci abonnement yi bu baax a baax ak commentaire yi ak partage yi ak lépp kenn du yéen ci mim sama fans yi yéen gën leen a jàpp rek yàlla baax na fu ma yegg rek yéen la kenn du yéen ci mim réew barke bi mal xaamal ak bar li ngeen di def moo tax bis bu set ñuy sawar pour de toog fii rek di leen lu neex waaye nag gars yi di leen ma laalal bii sem bi soxla naa ko lool like vidéo bi day tax mu yéeg vidéo bi dafa war a naaw cent mille abonnements yi ñëw un million yi ñëw loolu rek lan soxla barki wemal xaamal ak kibar tey nag dañuy dikk ci yéen tey dañoo bëggoon a dikk beneen li nga xam ni moom la jigéen ñi wax waaye tey seen soxna moo ma woo ñi ma mbëkk faal bu ma wuyu ko mu ni ma ngénte yaa ngi toj ma ni ko lu koy toj mu ni ma xew yaa ngi ma ni ko lu koy toj mu ni ma lépp a ngi toj man ni ko <laughs> ëpp naa def mu ne ma suñ kër dafa amoon suñ kër mooy sa su su nee na moom ñaareel la mais aawo bi nekk ci kër gi nee na dañ ko doon ngénte ndeysaan xam nga am na ci ñoo xam dina bëgg ngénte nee na ngénte ngénte lu riis lañ ko fa defal macha allah samay xaali xii na ku ngénteegul yàlla la yàlla la yàlla may nga ngénte barki bi yamal xaamal akbar waaye nag ngénte yii moom war nañ cee xoolaat xoolaat ko bu baax a baax seet tatante ko ndaw si nee na ma biñ ngéntee ñu ne ci ngénte lii ñii sañse gauche ñii sañse droite kenn ku ne jëm fële nee na ma bi nga demee ba nga xam ne ngoon jot na ngoon ñu war a yebbi ji ma war a dem solo ji ma dem songu li nga xam ni mooy sama armuwaal ndeysaan nee na dara dara dara dara gisuma ko fa mu ubbi gisuma dara ñu dajjal ma ndeysaan caabi ji ngombali nee dañ koo dajji dara gisuma ko ma ne ko soxna si leeral point boobu loo gisut mu ne ma samay takkaay gisuma ca dara ba ci sama yenn ci samay jasneer gisuma ko ma ni ko ah <laughs> lan lu ko waral mu ni ma nag kenn lañ ko jiiñ boobu ba léegi gisaatuñ ko ca ngénte la ni ma waajoo xam ne ma nga ma nga la solal mbase boo xam ne sii da ngay foog ni moo yenn xew a da sama jëkkër moo doon xew mais waa ji boo ne ko jàkk barke wi mal xaamal ak bar da nga naan kii moom moom xew yi ca waa ji nee na munu ko wax ni ko yow foo bokk munu ko wax ni ko fooy jógee ndax sama jëkkër am na ay mbokk mbokkam man am naa samay mbokk sama jëkkër am nay xamaale man kii kii wusin wi tamit am nay xamaale xew wi xew wi xew wi xew wi da ngay gis ñoo xam ne nan dëj ci xew maanaam xew da gis ñoo xam si dañuy sañ sa lu rëy sañ sa jeesneer bu toog walla sañ sa yére bu ni muut barke bi mal xaamal ak kabar sol dàll yoo xam si non non boo ko gisee da naan kii mooy ngént wala kii mooy ciital wala kii moo waral xewi te fekk na boo ko xoolee ba ca biir sàcc ngi nii li muy sañse lekk ak li muy lim sañ sañse kaw ba suuf ak lim lim lim xool kaw ba suuf yére yi muy sol rek gëmu ci lenn sàcc gi la gëm barke yomal xaamal ak bar gars yi def leen faire attention ndaw su nee na kii mooy yóbbu ay oram mu ba ay jasneeram jasneeram nanu xoolaat xew wi lu mu neex neex neex na ñuy xool suñ caabi néeg yi xew wi lu muy neex neex neex na xool suñ dab yi xew xew yi lu muy neex neex nañu xool suñ téléphone yi am na ñoo xam sañ sa nan ba jekk toog di xaar na néeg yi wér rek ñu ñëw ubbi ndànk yóbbu lu fay téléphone day dem lu fay or day dem lu fay jesneer dafay day dem lu fay lu baax rek barke yombal xaama lakk bara day génn kër gi am na ñoo xam si dañuy sañse di wër xew yi am na ñoo xam dañuy sañ sa ba jekk wóoruñu dara liggéeyuñ defuñu dara xam lu ñuy wër xew xew la ñuy wër buñ naan nangam sangam ku koy nungul nangam sangam seet ba ñëw te li gën a garaaw nag koo sant foofu wasin wi ñëwee ak foofu seet bi ñëwee pépé pépé bi ñun ñi daw concentré wu ci ñii génn néeg yi barke wemal xaama sàcc bi jiwale noog yow yulli batan bi lay def ñu yóot nafaga sa nafag nday gi da ko yóbbu bu fa sama faak baay nekk mu yóbbu ko sa oor yi nday da koy yóbbu sa oor yi baay mu yóbbu ba ci yow ñii ni ma xujj ba kewe mal xaama la kabar bu fa sa fekkee say oor ak say téléphone lépp lay sàcc xam na ci ci xew kuy dem bay sàcc ay dab ay xew donc dañuy wàññi dab dab yi manqué aw xew dañuy wàññi tayu tayu rek barke bi mal xaamal ak am na ñoo xam dañ koy sàcce di ko ñooro ji tu bay maanaam ni ko góor ñi defee xam nga am na ci góor ñoo xam dañuy sol di wër aw xew am na jigéen ñoo xam dañuy sol ba jekk takk ay or yu rafet nga foog ni ñii dañ fay ñëw sama doom may ma ma may liñ leen ci sama doom may ma fan la ñuy sawee nga woon leen toilette ja ñu nit ñu toog ci toilette di jàkkaarloog néeg bi rek bu ñëpp dawee ca wasin waak wala ñëpp a daw ca wasin wa ñëw na ñëpp daw sa seet ba ñu ni yolom ca néeg ba yéen ba lu fay nekk bu ñàppee seen xap xapp góos bii ñàppi seen xàpp droite bi yëlëb ko ci biir am na jigéen ak poos mais jigéen ñi léegi am nañ am nañ ci poos am na da nga ci ko gis koo xam si ndaw soo wana nañ ko fan ni ci marché yi ba ci marché ndaw soo xam si bu événement dikkee événement maanaam danaan jugg nga foog ni kii dafa am yaram te li ko wër lépp nday saan ay yére yum sàcc la barke bi amal xaam lakk bar yéen ñi nga xam ne yéenay def seeni xew yéen lay waxal yéen ñi préparé te seen xew yéen lay waxal ku ciy ngénteeti wala ku ciy ceela ceetalati wala ku ciy mariaasati wala ku ciy wàcc ab séet xoolal ñuy dugg donte mënoo continuer gu wut ay quelque booy dénk leen néeg yi barke bi mal xaama lakk bar néeg yi war nañ ko xool ñu koy chanoyé ndaw si nee na oram bépp lan yóbbu ba la ko mujj daa mujj solu ñëw simple toog dañuy foog ne naan day concurrence nangam sangam daa bëggul wujj nangam sangam daa bëggul aaw bi déedéet danoo sàcc oram te mënu ko wax ci biir nit ñi daa baay ba xew wi jeex mu door ko wax ñun ñaa ngi ñuy rax de am na ci ñoo xam dañ ñoo rax de sañ ba jekk sol lu rafet par parfum nga naa ko sa parfum yëkkati téléphone bu cher nga naa ko waaji waaji fekk na gëmu ko tey moom mii sañseem bi li muy sañse sañse ak li muy ba barke bi mal xaamal ak ab sàcc la sa gëmul ci sàccam bi dara kii sàcc la gars yi nañu xoolaat il est nag tey nag dama bëggoon a ñëw ci góor ñi nga xam ñooy yokk mais nee naa ndaw si bi ma woo sama xol daa jeex ana góor dem leen ngeen liggéey te yàlla tax xewu jàmbur xew wa nga dem ca boo demee sax kii sàcc buñ ko xoolee ba ci biir te koñ ba la dëkk buñ ko xoolee ba ci biir mën naa bokk ci famille bi ndax yow lu la xamal ni armoire bee boo ko dajee ci biir xaalis baa nga fa ak or ba nga ñëw ne ceex yóbbu xaalis bi yóbbu or bi yóbbu wàlla jesneer yi yéen ñi xew daf leen faire attention ku dem bay sàcc ci biir ci biir sarax ñuy saraxal nit ñëw sàcc te jaaxalu ko de teet jaaxalu ko de marias jaaxalu ko waaye tamit wàccab seet jaaxalu ko yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm waa bay nukum ci yéen xuru jukkum guppoo gupp gupp faadaa gupp laa gupp lëfër lëfër vise naa leen sàcc yaa ngi seen biir sàcc yee leen rax de ku baax sàcc yi rax na leen xoolaal leen bu baax ñi ngeen toogal yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm wasalaam